mun nañ koo may muy mos li muy toog waaye du nekk mosi tibb de comme ne ko séeréer yeeg joolaa yi di defee eh, dafay nekk rek daf ci teg baaraamam bi mu seet rek ndax am na xorom wala am na suukar yooyu xam nga yooyu yëpp du problème ko moo tax problème ni ngeen ko tuddee jigéen ak weeru koor lu am solo la lu am solo dafa dafa fitin mm-hmm. parce que jigéen dafa bëri yu muy gis ci biir weeru koor te góor du ko gis du ko fekkee su ko defee yooyu yëpp nag islam bi mm-hmm. wane na naka doxalee su fekkee naka la koy fajee mhm. jafe-jafe yooyu naka lañ koy faje islam wax na ko eh, ba tax na am na ñoo xam ne ni ci jamono bii nag texte yu jëkk yi nag binduñ ko woon waaye léegi fi mu jamono bi dafa dem kanam ñu ñaa ngi ubbi Facebook di dem ci website yi di gis jigéen ñi use pil suñu war a man na gënaluma man waaw loolu lan la si islam wax sax. waaw ma ne la soo demee si suñ texte yu jëkk yi hmm. ñoom waxuñ su loolu xanaa ci aj maaka gi de am na yenn xaddis yu wax ne am na ñu mosoon a wax yónent bi ne ko dañoo bañ ci biir aj gi ñuy mensurer ndax mënuñoo naan ci garab gi benn gajj la benn benn benn garab la boo xam ne suñ ko baxalee suñ ko naanee xëy na duñ ko gis ñu ne nanga nanguloon na leen ko waaye bëriwul ñu ànd nag ci xaddis boobu am na nag ñu jéem a wéer wax jooju ci ne kon su weeru koor jotee jigéen su fekkee dafa bañ a dog ci weeru koor yi mën naa jëfandikoo loolu xam naa docteur yi ñoom moom su fekkee ne du yàq yaramam du ko gaañ. loolu ñoom ñoo ci mën a wax dara. waaye islam daal xaraamalut ko. waaw xam naa du war a nekk xaraam daal parce que xam-xam dafa baax. te islam dafa bëgg xam-xam. luy yokk doomu aadama bi. moom islam daf koy bëgg ah. eh, ba tax na daal eh, waaye man mu ñàkk koo def mm-hmm. man moom a gën a bu ko defee ñaari fan ñetti fan yooyu mm-hmm. soo paree mm-hmm. am na juróom benni fan yoo xam ne bëgg nañ ko ko or su weeru koor wu jotee ah, jeexee nga or juróom benn fan yooyu fayaale ko da nga boole eh, am yooli fay or juróom benn fan yi ak fay fayaale bor bi yëpp waaw man daal kon dafa mel ni comme su six euh, su weeru koor bi jeexee. Mhm. si nit ñi di def seen six days yi yow mën ngaa fayaale sa bor. da ngay fayaale ba pare amaale six days yi ba pare fayaale. Ah. loolu loolu yàlla defal la ko jigéen. waaw ah. ñu ñëw si antimay euh, ci topic bi nga xam ne moom la imaam laal euh, muy jigéen yi laal piw ñuy naan piw si weeri kool bi euh, ñu buggoon nga comme que jigéen nga nga waxtaan ak suñ mbokki jigéen yi bu baax ñu xam bu baax lan la si diine bi santaane daal because xam naa ñu bari dañ dee bëgga weer koor bi ñu oor ko yëpp ñu baña a fee daal moo leen di génnal ah. ah. waaye soxna maama yàlla mm-hmm. moom dafa ormal jigéen dama dee wax sax ne jigéen dafa am liif ci liggéey ci diir liggéeyal diina wala ci jaamu boromam am na liif tuuti ndax yàlla imaama soxna defe naa bu ñu demee suura ahzab fi yàlla subhanahu wa taala di wax naan وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا yàlla mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. ne jagut si benn julit bu góor wala julit bu jigéen kul gannaaw bu yàlla ak yonentaam dogal dangal yoo nga ne déet yàlla moo dogal si jigéen ne danga war a gis mbaaxu jigéen si jamono bii jagut si benn jigéen pour nga dem di jël prix di arrêté liggéeyi yàlla islam nee na la pour ne after weeri koor danga war a yàlla defar na lu ne ku feebar ma imaam soxna wax na ko yàlla ne ma man kaana maridan aw ala safari fa iddatum min ayaamin uxar yàlla fekkente ne danga feebar wala nga nekk si yoonu tukki foo ma langum koor di am wér wala nga jógee si tukki noonu jigéen wax na yëpp jigéen juy nampal te mënuta eh, eh, eh, oor jigéen ju omba te mënuta loolu yëpp liif war a jël rek. gis dara mm. nga yooyu yëpp da war a bàyyeengoo. Mm. ba soo setee. Mm-hmm. nga sangu janaaba bi set. Mm-hmm. Mm-hmm. nga dooraat. ok mm. mu nekk lu am solo ñu seetaat yi ci biir kër gi euh, comme jigéen la ak weeru euh, xam nga ni su jigéen yi comme ni ko ni ubbee waxtaan bi rek ñoo amee kër yi. Euh, léegi léegi toogandogu yi. ñu see euh, ñu am stratégies daal yi nga xam ne moom la ñoo put in place ba nga xam ne ndog bi du baña a liit comme ñu war a toog ba ndogu jot ñi ñu nga si waañ ba te time boobu loolu lañ waroon na mm. ndogu di julleeg jaamu yeneen yàlla mm. yeneen yàlla jaamu yaal yi nga xam ne moom la mm. euh, julli ji war a def euh, su tuu tegee rek yow soo julee tu rek mun ngaa jóg start su fekkee ne koo xam ne nga ku yiix tooga nga wala sa yëf daal gaawut eh, parce que ne ku naka that ka ñàkk a rongoñ nga gaaw a jooy waaw ci la naa boobu noonu tamit su fekkee ne mën nañ see sensitise um, askan gi surtout jigéen yi nga xam ne ñoom ñoo uh, seen taxawaay dafa am lu solo uh, ci biir weeru koor hmm. uh, fu naa loolu tam mun nañ cee wax jamay waaw teel a jóg préparé ndogu li waaw li mu wax nii am na solo parce que itam jékki ba war a dog ñu naan la tii bi manqué naa ñëwagul a fii anam meew maa yooyu fekk danga nga da nga yéex la waaye suñ ko teeloo a defa comme ni ko sa gaay yi defee xam nga loolu kon coow du am mm-hmm. te am na góor ñoo xam ne su ndogu jotee te naanuñ seen tii bi wala naanuñ seen attaay bi mun nañoo mer mm-hmm. te fekk xañ na yow yaa may ko doon jaar. Ah, daf naa aju may nga wax foofu ci jigéen ñi ñuy teel a yaal. baax na ah, dinañ si wax waaye fu mu ni nii break moom la ñoo def si dañoo am rek ah, dog bu gaata rek su ko defee ñu ñëwaat continue waxtaan bi waaye ba tey rek ñu ngi jaajëfal ki nga xam ne moom mooy Samba's Kitchen nga xam ne moo defar lekk yéene am naa ne suñ mbokki Pël yi ak joolaay dinañ yàkkamte ñu génnee naka fuel peppers yi ni su ko defee ñu mën a xam lan moo fi nekk waaye dinañ dem ak Teneng Kitchen eh, ci waañ bi ñu seet tey lan la ñu amal. asalaamaaleykum mbokk yi ñu seetaan ñu leen di ndokkaleku seen um, programme yi ndogu bi bu ñëw everyday um, si GRTS fii nii man la seen xarit nag njiiti ànd fi ak Samba di Samba from Samba's Kitchen um, ñëw fii ne leen wane woon ay tooga yoo leen mën a def yu yomba ba pare yu healthy yoo leen mën a def si weri weerum koor bii nii Samba tey loo ñu amal. man na Samba's Kitchen tey lu ma leen amal si ndogu bi spécial tey pour ndogu pour yenn pour njaboot wi. tay luma len amal tay beef beef salad la len defar mango and beef salad la len defar tay comme ni fu nek ni ci bi wer koor bi tassena mango te tay ma leen ne li ngeen use mango boobu noonu at yapa ngeen def ko salad pour njobot bi ñu mën ko lek yombana gawna pour ñëpp la lo soxla moo nekk sa beef bi da nga ni sa beef steak bi nga doga doga nga doga ko season ko bem saf nga fry ko ah da nga def ko sa bowl then ni bu lo soxla wati moy sa liñoŋ liñoŋ bu nga xamne dang ko slice juliant nga def ci nga def ci sa kaani bu ay sa tomate bon juliant nga sanni si touti nga def ci sa persi persi comme nung ko waxe persil persi daf lay defal lifin comme beef daf ko lu du beef muy jën mu la persi baax te is very good um, nga am ci rof wow nga am sa spring onions also nga sànni ko si. mooy then you put your vinegar little vinegar in there salt and pepper. poobar. Mm-hmm. poobar nga def sa xorom man daal yàppa daal nu mu safee safee moom jimbo daal na ngeen ko tegee boor yàppa xorom poobar moo si dàq mooy yëpp si togga neex na te xelti na tamit soo nga jël sa yooyu noonu yëpp nga mix ko mu nga si def sa olive oil bo amé olive oil ci kër bi mu nga ko use olive oil tamit is very healthy pour sa yaram sa yaram bi baxna na tamit pour njobot bi mu nuté am olive oil tamit mu nga use diwi gerte gi mu nga use bo noonu dan. So légui mix na mix na sun beef salad bi yena gis nu mel rafet ba So a so légui loy def mo nekk da nga jël sa salad bi nga spread ko ci sa plate bi bi na teel ma isi plate ba du nga laa isité plate bu reuy la pour njobot bi <laughs> so what you do you put your nga def salafin bi okay. bi appul la dama ko xooli te ma génnee lifin bi xoof xoof bi si digga bi loolu laa def nii soo léegi lu ma ñëw def si nii mooy damaa jël appul bi slice ko def ko si salade bi ko da nga jël sànni ko si salaat bi. Sama ñu bari di xamuñ appul ak pomme ak salade. waaw lu mu fa taajoo mooy pomme. is fruit kon nu ma la ko waxoon bu njëlbeen bi rek moo nekk ne fruit soo oree ba or bu jeex da nga war a lekka fruit bu doy si sa biir dafa war a dem si sa yaram bi soo moo tax man suma togga yi si weer koor gi yëpp dama leen a isil vegetables yu bari mbite fruit si seen lekk yi laa leen ko def su ma leen defal salade naa fa def ay fruit yu nga xam ne ne fa ne tey apple at mango laa leen defal si biif bi boole koo yàppa bu leen foog ne du neex de neex la def te dafa saf <laughs> good nga def sa kakumba bi bu mu xool yëpp si foofu noonu because yëpp vegetables la and they are very good for your body. comme la yaa ngi or the whole day dehydrate ñii nag dañ laa jox fast li fi ne loo soxla si yaram bi lan ñii ko mën a jox mu gaaw suñu jën a gaawee so bii mangoro la xooli ko nga jël ko slice si kaw bi mun ngaa use mango bu nekk mun ngaa use jur mun